xanaa da nga la ñuy lan la ñuy tànte dañuy improviser rek ñun moom dañuy dañuy improviser rek suivant atmosphère bi li mu laaj quoi. satisfaction parce que tant qu'on joue dans le fair play rek am nañu satisfaction. waaw le stade était plein rek la ñu wax mais pas archi plein <laughs> non bii moom mënut parce que. on ne peut pas te proposer quatre matchs à moins de mille francs mille francs pour pour pour deux matchs dafa yomb lool. waaw normalement y' a Cheikh Ahmed Tidiane Thiam qui a parrainé la finale de l' année dernière qui viendra donner le coup d'envoi ensuite y' a le de Pikine Dagoudane qui m'a appelé pour wax ma ne mi ngi ñëw quoi. waaw toujours rek nañu nekk dans le fair play parce que boo gisee stade bi sax. directeur bi ñu ko jox xale la te boo gisee li mu def nii loolu mooy euh, mënu mu ñu ñu la salon bu weex tàll nga ñëw sol loo xam day taqal mënut ta nekk. c'est un bijou. c'est un bijou yéen it je vous ni ngeen di relayer affaire yi muy dem partout dans le monde ngeen di ci ñaaxaat nit ñi parce que tant que les gens viennent civilisés a d'autres challenges yoo xam ne mi ngi ñuy xaar ñu leen koy jox mais on ne innover dans la violence quoi. mais effectivement léegi yéen vous êtes sax ici avec le président de la commission sportive ñu yoroo ñoom da leen dimbale nga leen di jox chaque fois les feuilles de match afin qu'ils puissent faire très bien leur reportage dégg nga c'est bon.